balaa ñuy ñëw si nga xam ne nii mooy menace yi nga xam ne nii Aïssatou Diouf Fall def na ko si Aziz Ndiaye ne ko bés boo maanaam defee live si boobaa ngay bàyyi live parce que daanaka génne say dossier yan dossier la est-ce dafa am dossier yoo xam ne Aïssatou Diouf Fall da koy jox xam ne nii mooy Abdou Aziz Ndiaye on sait pas en tout cas nañ ko dem toog xaar alors si c'est bon nañ dem déglu ki nga xam ne nii moom mooy Oustaz Modou Fall ak ki nga xam ne mooy Aïssatou Diouf Fall ñoom ñaar ku nekk Oustaz Diouf Fall ak ki nga xam ne nii mooy Oustaz Modou Fall waaye ñoom ñaar Fall lañ sant de ñuy xasante di rayante man Seck laa sant. kon kon da ngeen déglu rek. jub jubal jubbanti bi gaa yi di wax. am na ci ñoo xam ni mais yenn journaliste yu jigéen yi nga xam ni ci loolu lañ daan amee xaalis di monte ay marché di lekk ay riba man nag du ma tudd tur parce que xam nga yenn saa yi damay seexlu nag damay seexlu yenn tur yi mais am na journaliste yoo xam ne ci Sénégal dañoo tuddee seen bopp ay journaliste muy journaliste yi dul kontaan am na ñu dul kontaan ci àddina ñoo xam ne duñ bég foo leen fekk ŋuññu ŋuññu dañuy dem ba nuroog dàngin te ku topp seeni maam gis ci dàngin de maay wax ak yow yenn nuroo yi du hasard foo ne moo tax jub jubal jubbanti bi du leen arrangé réew mi ku newul woon ci jub jub jubal jubbanti du la arrangé yow mën ngaa nekk journaliste di gagné ay xaalis ñu la koy jox ay politiciens nga leen di campagnal ñoo ñu wàcc daanu ba mel nit ay karo yu ne ci suuf mais foo jëm YouTube bi ay onze mille douze mille la ñuy fay dinaa mën a yor sa kër <laughs> bu sa xol bi bonee sa kanam gi moog dàngin ñooy nuroo parce que doo kontaan te yàlla def ni dafa bëgg kanam gu leer moo taxoon yonent bi ni bu leen njàqare dabee ci àll bu ngeen dee tiis seen soxla tiis leen ko borom kanam gu leer journaliste bu jigéen bu mel ni dàngin ñu tëj say port amatoo foo màttee dóor yi jeex na jub jubal jubbanti Sonko du ay foo yow tam gone Casamance gii man est-ce que du ma transimer sax mais gone Casamance gi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi defar dëkk bi nag nañ ko wax jub jubal jubbanti mooy benn journaliste bu jigéen dootu fi gañe ay marché di ko lekk ay tappale ay monté ay dossier ay waxal ci diw attaquel diw yooyu jeex na fi sama séeréel bii ak sama joolaa bii yow tam man lu baax ma apprécier ko man lu baax ma apprécier ko nii la ma yàlla bindee lu baax dama koy apprécier man soxoruma élection ya dama xëy di woo ñi ma am ñëpp pour ñu votel Amadou Ba parce que moom laa bëggoon mu falu moom laa bëggoon mais yàlla ñii la fal mais ñi nu fal nag li ma gën a neex ci ñoom ci moo bu ñu indi mooy jub jubal jubanti am na journaliste yoo xam ni ku ma indil video bu ñu kontaanee ci seen dund ma jox la un million du ilaa yow mi diin du kontaan te xam nga TFM nag mooy télé bu mag bi fii moom xam ngeen ni. alors on enchaîne on enchaîne teg beneen vidéo bi nga xam ne nii peut-être Ousmane Moussa wax ko wala Diouf Fall ñu ñëwaat. tax am na jikko yoo xam ne bu nekkee ci yow yàlla ci boppam mooy xawwi sa sutura mën na laa nattoo nga nekk plein émission jékki-jékki rek vocal dugg wala appel dugg nga wax loo xam ne ci sa dund dootoo ko rectifier say sët sëtaat bu ñu juddoo dugg ci internet bi dañuy dégg seen ndey ka ko woowoon téléphone ca émission ba affaire ba rëcc yooyu yëpp day am man nag samay wax bëgguma kenn juutal ko samay wax na jub samay wax bu ko kenn juutal samay wax na jub donc bi ci jiitu mooy jikkoy naafeq isa xadasa kazaba samay wax bu ko kenn juutal dégg ngeen baat bi ma utiliser samay wax bu ko kenn juutal na jub ayatul munafiq salaasa bi ci jiitu mooy isa xadasa kazaba koo xam ni heure bu waxtaanee rek fen du wax dëgg waxam yépp ay montage la. ay juutal yooyu waaye Penda Badji nañ ko waxtaanee waaye Penda Badji juutal kenn du ko wax da koy jëf <laughs> juutal du ay affaire da wax ay affaire da wax la jëf la ku war a juutal ni doo ko wax ba pare xanaa boo koy wax sax ni ko wax sax ci ci néeg nga làqatu wax na waaye en public en public nii. ñu toog bëccëg na rek kanam maa farba moom kay daambooj moo ci. ba tax am na jikko yoo xam ne bu nekkee ci yow yàlla ci. alors moo ngi noonu euh, comme ni ko Sall Sam waxee neen gàmm gi neex na lool donc gàmm gi moom sax pare na yëpp problème yëpp na génne si gàmm gi euh, mais Ouz. Mhm. d' accord Aïssa Diop Fall moo njëkk a génn wax si li nga xam ne mooy Oustaz Mour dem na ko ak ki xam ne mooy Aziz euh, Sénégal yi bëy tamit wax nañ ko. même moom lu mu wax la majorité des sénégal tamit ñoom la ñu wax ça veut dire que gàmm mm-hmm. bi ñu ngi ko defee moo nañ ko xoolee ñu ko defee euh, Oustaz Mour Fall tontu ne moo tey Assadio Fall génnaat moom tamit mu génnaat ku nekk tamit comme ni nga ko xawoon sànq nit bu waxee am na keneen ki nga xam ne nit di war na ko tontu. Mm-hmm. mais est-ce que euh, Oustaz Mour Fall bu dugg woon tey jii si wàllu showbiz. Mm-hmm. est-ce que problème bii dina ñëw Assadio Fall tamit bu yemoon comme ni ko doon defee est-ce que problème dina am est-ce que ça veut mooy est-ce que ñoom ñaar dañu am problème avant lii ñëw ñu la ko walla ñoom ñaar daal euh, ku nekk da nga moom sa haine moom nga ni ëpp ça fait l'occasion ma jéem a ji si kawam kii tamit ne xaar ma jéem a fayu hmm. man moomoo pour ñu tàmbali. Hmm. waxi oustaz Modou man moo ma ñor. ndax sànq wax naa la ni samay wax. bëgguma ku ko juutal mhm. dégg nga wax ci mhm. samay wax man bëgguma ku ko juutal sànq wax naa ko moom waxaat na ko ba tey ci biir waxi oustaz Modou Fall mhm. mu ne man Modou Fall man dëggu gi may wax ci moom ba léegi man Modou Fall Amadou Ba laa bëggoon mu gañe ba bi ma yeewoo di voté ji ku ma xam rek woo naa la ngir nga votel amadu Ba mu gañe man Modou Fall waaye yàlla ñii la fay teg déglul wax ci moom lu jara seetam tal pour ngeen xam ni kon oustaz Modou Fall nit la comme ñun looloo war a sax yenn patriotes yi naan histoire bi suñu yoon nekku merci <laughs> non non pour te dire. Mhm. affaire bi jarul muy bëri de ku ko bëgg a réyal nag réyalal. Mhm. oustaz Modou Fall moo ni man ñii liñ indi seen slogan dafa ma neex. Mhm. ba pare xamal na li sax ànduma ak ñoom ndax nee na est-ce du ma transhumé. kon maa ngi fa nekk ba léegi. ne la ànduma woon ak ñoom te ànduma ak ñoom. ndax man Amadou balaa votel xëy di woo ku ma xam di la woo ngir nga votel Amadou Ba maanaam di ko campagne am mm-hmm. loolu la la wax mm-hmm. ne nag waaye yàlla moo lu lu normal la ngi noonu te neex jarul kenn du sori mm-hmm. mooy c'est pas les marabouts c'est Dieu <laughs> d'accord y a Dieu dedans zahiran wa baatinan mu moo xam-xam gi neex dëgg ki am xam-xam dëgg mooy ki xam saayir xam baatin ndax ñun jeunes yi tey boo ñu bëggee jubbanti boo xamul li ñuy dund munoo cay wax ba duñ ci jubbanti ne nan la naankatu sàngara bi sax boo bëggee mu bàyyi naan sàngara mosal mhm. ne ko ah teg benn jus di tax ne ko eh bii weex na de wuy ma ñamal jus bi mu ñam nga ne ko gënta neexa del essayé bi di bàyyi bii wala wala bu fekkoon ñaari butéel ngay naan xoolal boo xëyee del ñaan ñaari butéel nga jékki-jékki ne ko xoolal bii di tax bi del ñaan ñaari butéel jékki-jékki ne ko léegi del laal bi kaas bii del jël ñetti butéel day dem ba sentir bana neex bu jëfut jëfumaa tey dégg bu jëful jëfumaa tey ba léegi kon maa ngi ci samay wax man mii bu ko kenn juutal ba léegi maa ngi foofu ci samay wax mooy man it mm-hmm. samay wax bu ko kenn juutal oustaz ba léegi di wax Modou Fall kon moom nee na man Modou Fall mm-hmm. ba pare na yàlla ak dogalam yàlla suñu borom ak man Modou ñaar wax na boppam moom Modou waaye nag indi ay ndogalu yàlla kon moom du mooy kii dogal munul dogal Modou Fall bu bëggee wax ci àdduna moom moom maa ngi jéggalu faaw mu xam li xew ci dëkk bi ah suus geeg màndi geeg cagatu geeg giwin geeg góor jigéen gi maanaam kilifa dëgg maanaam boroom xam demal nag maanaam ñi def ay tasawuf def charia def xaqiqa laay waxoon waxuma ko man ñu mel ni man de toog nii rek foog ni affaire yi fii la déedéet ñi def charia xaqiqa dem ba xam-xam màqaama def tasawuf def tarxiya def tarbiya def tasfiya laa waxal ñu jàngi téere xam-xam xam li xam-xam di wundu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ab kilifa dëgg buy bëgg di jubbante wala di wax ñu lay dégg da nga dañu riir xam lépp mooy waral ngay corriger nit ki mais daara ja tool ba daara ja tool ba moom nga xam doo xam li xew ci dëkk bi di kat ngay mën a orienté non non non. d'accord euh, foofu foofu d'accord naa yow à 1000 pour cent euh, mais tamit Ouz euh, maintenant dañuy jël cadre oustaz ak cadre maanaam kii ñu jël maanaam cadre li nga xam ni nii mag ñi moom ñu yar mooy ça di ko mm. góor ak jigéen. Mm. bu njëkk ba lan doon wax naan góor sax du xuloog jigéen. boo mhm. xeexee ak jigéen dana naan yow ak jigéen ki yéen a yem. Mhm. beneen bi tamit mooy dafa am sama benn cousine boo xam ne dafa am ko wax bu ko mhm. waxee. man damay rey te en ko waxee des fois su ku fekkee ku góor gi dina doon mel man la may def maanaam euh, day boo xëy benn góor nga wax nga wax dafa naan la maa ni nga mën a mel góoru euh, tegal baa ma teg saison nga ça veut dire que dafa boo xam ne peut-être dafa reetaanlu. wala tamit kàddu nga xam ne peut-être bu la ko waxee dina mais ça veut boo nekkee góor dafa am yoo xam ne. comportement boo xam ne moo nga war a am. Mhm. ak comportement boo xam ne moom nga peut-être moo nga war waroo ko am. Mhm. bu nekkoon ki nga xam ne nii peut-être góor la comme moom. Mhm. man d'accord naa. ñoom ñaar ñi yorante ci xam-xam mu toog ne ko lii mun ko lii mun ko lii ñu waxtaan. en tant que oustaz. mais maintenant bu fekkee ni maanaam jigéen la jigéen boo xam ne moo toog. di wax nga taxaw naan. kunduroog ak baab ak ak baabun mhm. loolu benn mhm. yow en tant que mhm. yaa fi wax léegi yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp mooy xool ku mu neex mu bindee ko nii mu bindee ko mu nekk mu bindee ko neneen yow en tant que oustaz nga jàng xam si lu yàlla wax si loolu nga taxaw naan nit euh, bu fekkee ne maanaam baabun nga en plus dafa am ñoo xam ne nekkoon sa ginnaaw ñoom ñoo fa nekkatul sa bun daa tëju sa tur sax bu ñu ko yóbbee si ñi nga xam ne ay sëriñ lañ yow am salaan bun bun waaye wax ma bun de buntu laa la ah, xuus merci beaucoup alors ñi nga xam ne sa sa buntu sa bunt daa tëju mhm. buñ la yóbbee si sëriñ sax bu ñu yóbboo sa tur dañ xam ne kii waroo abonné si moom waroo ànd ak moom waroo ak moom mhm. am na ñoo xam ñoo nekkoon si ginnaaw donc yooyu bu fekkee ni moom nee na oustaz la mhm. te Aïssatou Diop Fall da ko defee carrément nekk bu fekkee ne li ngay wax dëgg la defal nga ni carrément Aïssatou Diop Fall dafa am ko jox xaalis su boobaa dinaa la porte plainte parce que doo am benn preuve ça veut dire que Aïssatou Diop Fall noonu leer na ko amul kenn ki nga xam ne moo nekkoon si ginnaaw mm-hmm. bu fekkee oustaz Modou danoo wax loolu pour maanaam xuloo wala pour maanaam euh, tooñ mm-hmm. loolu tamit beneen anam la boo xam ne nii moom li muy woote si lislaam lislaam mun na ko si mun na si daan maintenant dafa am leen loo xam ne tamit yonent saa sallallahu alayhi wasallam daf ñu ko jàngal mm-hmm. mooy nit ki buñ la tooñee da nga mën a da ngay fayu war nga bu fekkee mënoo baale fayul mais tamit bu dépassé maanaam tontu bi maanaam fay fu mu yam loolu dafa am. Mhm. Oustaz Mor Fall man dégg ba léegi dégguma Aïssatou Diop Fall fu mu génnee ne Oustaz Mor Fall ni la mel wala moo ngi nduróog lii moo ngi nduróog lii moo ngi nduróog mhm. donc foofu laay waxee ma ni est-ce que moom en tànk góor. Mhm. war na di waxee noonu en tànk góor. war na toog ci télé bi. ñëpp di ko xool ay doomam di ko seetaan ay doomam di ko seetaan. muy dàgg seen teg ak nga xam ne jigéen la uus. Ah, maanaam loolu du affaire léegi xam naa ñun góor ñi ñun ñoo doomaraam ba lu nit jóg wax ñu. ah mais ñu noonu lañ yaree us waaw yarewuñ ñu noonu. non la non us moom yow bañ nga ko ba yaa wax ci biir yi wax nga corriger sa bopp. vas-y comme la déglu ma waaw déglu ma rek bi nga yëpp damaa toog déglu la da nga ma indil ñaar yow yaa wax ba ci yàgg ne buñ la tooñee nga fay lu tol ni lañ la tooñ. Mhm. oustaz Modou Fall ba léegi bu muy wax baatam jugul kaaw fii la ko teg. non mooy laa wax waaw waaw oh. na nooy ba mel ni xaal rek Oustaz Modou Fall li muy wax fii la ko teg de nga xam ne kii li muy wax sol na jasneeram bu rafet di wax lu lu neex di wax lu yànj di wax nim ko sentiree moomoo doo Oustaz du Fall duma moom yow buñ la waxee dara sañ nga muñ man buñ ma waxee dara munumaa muñ bu yeboo ñu ne gó nañ ma taxe góoru watar bann nañ ma taxe góor jigéen man ku wax sama ndey lu ko tee nelaw ma wax sa ndey ak sa baay lu leen tee gëmm man man ma ni ku wax sama ndey lu ko nelaw ma wax yow sa ndey ak sa baay lu leen tee gëmm mais si góor a góor ba ak ci jigéen man ah ah ma ci nit di nit yow en tout cas yaay tiim ah yow daal yow yaay toog wax lu la saf yekk nit ñi lu la saf nit ñi ne ni dañoo croiser la bras mais parce que dangaa fàtte sama meeru lawbe ba lam doon wax ay sa paate mm, lawbe nee na xuloo xuloo la loo xamal sa moroom ci lu bon waxal bu la ko waxee wax la rek jox ma nem buñ jël affaire yi bu ko yóbbu fu kawee Modou Fall nit la mais est-ce que mu waa déglu ma rek moom est xaaral xaaral ma ñëw ba pare Modou Fall nit la nit nit la nit nga koy wax muy mer di jàpp di denc am nday am baay keneen am nday am baay dëkk ci kër mu dëkk ci kër ngay tuur ndox muy tuur ndox ngay tuur dugub muy tuur dugub ngay biddanti muy buddanti nga xam plaisir mu xam plaisir nga xam lu saf mu xam lu saf nga cuqule mu cuqule looy defe def na ko nit la du wàlliw du xut bu samaan déedéet te gënu fee jàng ñépp de dafa siiw am na ñu fi nekk ñoo gën a doon moo du Fall xam lu ne toog xamoo leen xamuma leen waaw kon ndànk rek nit la moo nekk nag di animé moo tax ñu dégg ko boo duggee Touba gi kilifa yaa ngi fa waxuma sax kilifa ñoo sant neneen ak neneen yor ay daara di jàngale xam lu ne di waxtaan boo leen waxee ñu tontu la kat waaw waaw. mais léegi loolu loolu yow la ay xasante. yow du Fall nga wax moom moo jël ay responsabilité boppam. léegi léegi léegi léegi léegi li mbër mi doon wax Amadia. Hmm. waa koñ bi ñoo ko moom. nit ñi ñoo ko moom. dépense ñoo ko koy joxel këram. làmmiñam ñoo ko moom. xolam ñoo ci ne. ba Modou Fall ku ko tontu moom ñu ne la ñu ne ko doo ko tontu. ku ko wax du bon ñu ne Modou Fall du ko wax mais Modou Fall moom la. léegi d'accord li muy wax moom la intéressé wuy moom moom moo taxawal. damaa bëgg ñu ñu ñu ñu nekk ay nit tuuti. yow yow dañ yow dañ la wax yow am nga droit ñu wax la nga noppi. garaawuloo ko ma laal ataaya Modou Fall bu kenn juutal samay wax. <laughs> bu kenn juutal kaas bi ndax kaas bi ku ko juutal day tuuru. <laughs> gis nga loo juutal mu tuur juutal baaxul loo juutal rek day indi loo xamante ni du yoon naan comprendre d'accord man duma ma Modou Fall yow doo Modou Fall mu moo faa ñu faa ñu jël man damay bëgg affaire yi lu xew buñ ko jël di ko taw yi naan nangam sàngam mhm. naan nangam sàngam gànnam meseraa ngi nii ma wax la ma tudd tur pour nga comprendre mhm. kana ko gën pànk gànna loo ko wax wax ko ci sëñ Touba ñaari dina ko tontu. ci sëñ Touba. gànna ba ci nit ak nit ñaata ñaata vidéo gànna nga gis ñaata vidéo oustaz ngay gis. merci monsieur bëri na fi. pourtant dem leen suivre nañ dem suivre rek nañ bàyyi naa fekk gi. Mhm. bëri na fi ay oustaz yoo xamante ni nit ñaa ngi génn di leen classe ak yeneen ak yeneen bu ñu defee vidéo dañ lay tontu di. ci affaire de diine. ba ba ci affaire de nit ak. Ah, nit ah, non j'ai jamais vu moi. ci affaire de diine. Mhm. la tontu moo tey moo tey. mais est que moom bu yemoon si diine gi bu yemoon si ah maa ngi ñëw dama ne moom est ce que moom bu yemoon si diine gi si moom li nga xam ne moom lañ ko xamee comme ni ko xamee si oustaz yi moom kon tey nii du toog fii dàggasante naan diw ni nga mel diw ni nga mel Ouz mun naa d' accord comme wax lii mu ñëw wax lii mais pas ay xasante Ouz xasante c'est autre chose d'accord xuloo la de. la man c'est autre am na góor man man uus man sama tey jii sa bëñ yi sa bëñ yi. Mhm. xam nga xam nga dafa maron nga mhm. xasee ma ko jàppal ne sa bakkan bu ndaw bi dinaa la ko xasee. waaw d'accord ngay jigéen ma ne ma xoolal ko yóbboo ñëpp tàmm. Mhm. su ma sa nangam su ma paree ne la su coot man avant keneen pour te nga naan ma góor ak nangam sangam. d'accord ma ku nekk am am loo ma wax ma delloo la ko doonal. xoolal doonal jigéen. d'accord xam nga sànq da nga doon wax naan Oustaz Mor Fall Oustaz Mor Fall moom la sentir Ouz fii képp lu waaye nit di def moom nga sentir maanaam tey jii nii euh, kii di Astou Diop Fall lu mu def moom la sentir Oustaz Modou Fall lu mu def moom la sentir mais ça veut dire que loo mën def am nga lu si baax nga lu si xam nga affaire bi lan la fu mu ne nii méttiwul de xam nga affaire bi lu tax mooy da nga daan def ñenn ñi affaire bi garaawul de. d'accord loolu xam nga ko da nga ko ko daan def ñenn ñi mu lay jig. moom la c'est c'est clair. waaw may may rek. dañ ko daan def ñenn ñi mu lay jig ndax ñoom dañoo kuul nga yekk leen lu ne ñu ne garaawul mais loolu du ci Mor Fall Mor Fall moo leen wax boppam ku ma ni benn midi ma wax la ko midi et demi nga dem fii xas ma ma dem fee xas la nga wax ma lii ma tontu la lii te nee na léegi génn na tontu yu bees nekkatu fi di def vidéo yu gudd mu koy sanal ñaari baat lay wax wax ji jeex. moo tax toj na fi. amul amul xalaat. <laughs> man man c'est la première fois ma gis. amul amul amul xalaat sérieusement déggoo li ma la wax. ma ne la da ko doon def ñeneen di xas ñeneen di wax lu ne booy mu moo sànq ci biir wax nee naa la ñun li li ma duñ ay mag waaye li ñu fi fekk bëri na de ñu fekkee nga toroxal fi kilifa gune wax fi nit lu ne. waaye ba crise bi commencé menace sax. waaw tiital fi nit lu ne. d'accord booy booy sosal fi nit lu ne. teg fi nit lu ne waxal nit lu ne. fii te coow jibu naa parce que dafa yomboon mais léegi man sama ataay bi ma doon naan su ma ko juutalee kaas yi. day tuuru day tuuru. bu kenn juutal samay wax. ah moom noonu Arka ñoo ngi nuyu Samsu bu baax a baax merci beaucoup euh, xuloo moom. Ah, xuloo xuloo la d' accord Sams loolu moom euh, amul règlement d' soxna mu nag ay sot moo tooñ si je ne dis pas que tooñul dama jàpp ni maanaam góor warul toog di dàggasanteeg jigéen waaw góor moom baaxul góor baaxul loolu laa jàpp peut-être man loolu mooy sama góor war a dàggasanteeg jigéen surtout te góor war a tëjoog jigéen surtout nga ne oustaz nga <laughs> xanaa dàggasante bu rëy baa ngi noonu euh, Fatou Mbacké <laughs> Fatou Mbacké Yamal Fatou Mbacké Yamal nga naa may ma oustaz da faral man amu ko mooy faral yow yaa faral oustaz boo moytu dinaa la siiwal si dëkk bi nag ñëpp xam ne yaay kan alors euh, bu ñu paree foofu ba léegi euh, mais kii di Aïssatou Diop Fall dafa may dafa menacé ki nga xam ni mooy Abdoul Aziz et là loolu beneen règlement la mais non Aziz waxoon na carrément moom day tontu est-ce que lu Aïssatou Diop Fall wax dina tax mu tontu ou en tout cas nañ dem déglu Aïssatou Diop Fall kàddu yi nga xam ne njëkk nekk si kaw Aziz